Bienvenue sur Salam Vision. maa ngi yaa ngi fii waaye nag maa la fiy il faut ñëpp fi ñëw ñëpp fi daje kon nag dañ fi def li nga xam ne mooy formation à l'hôtellerie il faut am na li nga xamante nii mooy lu jëm ci mbirum tourisme il faut am na restauration maanaam togg waaye nag il faut formation bu ama am solo tey nag gis ngeen ma maa ngi fii ak samay xale macha allah tout blanc lu muy déggee ñu ne weex mooy nit buy togg dafay sellal sellal moo tax ñu sol ay tenue yu weex tamit sellal moo jëm ci côté togg ndax nag nit da ngay lekk lu sell kon tey maa ngi ifot dinañ ma fi fekk si nag ndax xam naa ne sama gars yi ñu ngi ci yoon bi di ñëw kon nag gars yi